at saa su ne alors ñu daal di ñëw ci euh, beneen ponk bi nga xam ne moom la ñuy euh, waxtaanee ñeel benn euh, accident bi nga xamante ne am na fële ca Jula Boji ñu daal di ci wàññi juróom-benn nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan fukk ak ñeent ñoo xam ne ay blessé grave lañ ña nga ca l'hôpital li nga xamante ne nag moo ko waral mooy ñàkk xam code de la route ndaxte oto bile daanaka benn oto bu am 18 places. Euh, am ci ay at. 30 ans 30 ans fanweer noonu la di. Euh, moom moo euh, mbëkk walla fekk si benn camion. boo xamante ne moom it am na 35 ans keroog ñu ngi fi doon waxtaanee. oto yi nga xam ne dañ koy jëlee Europe di ko indi fii. Mhm. wala ñu koy mënti tere naan dafa âgé. te boo ñëwee fii ci Sénégal am na oto yoo xam ne boo leen rombee tu te li ngay njëkk laajte mooy ñi nan lañu def ba am visite technique. lu ciy pexe Ibrahima ba tey même constat. Mhm. juróom benn bakkan fukki ak ñeenti ñekk ci gaañu gaañu jéggi dayoo ñu leen ñaanal yàlla dimbal leen ñu jóg cee jàmm. 30 ans 35 ans ci ay oto yu daw. mais est-ce la bàyyi nga chronique temps yi dafa mel ni moom chronique yu neex ngay dóoral internet yi de <laughs> non chronique am. gisoo yow laa yow laa publier yow laa publier statut quoi. <laughs> ma ne la nag bul bul jël bul jël suñu job yow koy jéebal ci laaj bi rek. parce que dama ragal boo commencé door ñu ñu ñu balayee ma. <laughs> <laughs> xoolal jël na seen place bu yàgg. ah loolu de danaa ko chroniqueur yi dañ dañ lay takk de dañ lay liggéey de. <laughs> comme ni xale yi def sa diggante. <laughs> waaw waaw wax nag sëy bu tas metti na. Mm. Eh, pour nag. pour nag ñi di seetaan tamit. kii kii maax moom yàgg nañ laale de. ay non xamante ne moom ay. gars yi moom moom moom sa ngeen naa ba ak maax moom moom xamante ne. moom moom xamante moom. muy ma tas moom waaye dinaa la ko samañ ma nga dégg ko. a ma jox la ay photo yi mu nekkee balance. gis naa ma ci ay tàngalam yooyu nga wan ko internet yi wuy ma soo ko wane ma kii mënuma kaay ma wax la soo ko wane ay roba yem fii xool tuuti. déglu ma nga xam ne kii mënuma fontoo. wallaay dëgg la. Eh, après naa la jox photo yi nag. wallaay bu ñuul ba nga xam ne ñooy wax cinq fois <laughs> maa ngi yow a yemoon képp dañoo tekki rek jomaay jël réew mi. Eh, na neex rek semis bés danga daan fóot di weer may fóot di weer ñu ñëw ci accident bi am tey ñu ñëw ci ay bateer xanaa réew mi soppeeku na balaa ñoo jeexal coom dina ko génnee waa ne neen coom mu génne photo bi fii photo bi fii internet yi xàmmee ko quoi xool xam nga benn waay benn waay dafa ma woo bitim réew ci li ngeen di wax nii moo tax ma ne daal kii du nit waay ça c'est extraordinaire waa ji dafa mhm. ma woo di attirer sama attention ci li ngeen wax nii mu ne ma ñun ñi nekk bitim réew amuñu dara lu dul teranga bi ñuy indi Sénégal teraanga bi ñuy indi Sénégal. Mhm. mooy ay portable yu ñuy indi di ko jaay ay tissus ay oto nangam nangam parce que ne Europe loolu la am conteneur yi muy indi ci loolu oto am ci pàcc bu am solo waa ji ne ma ñun dañuy indi oto fii ñu ne ñu oto bu am huit ans mënul daw Sénégal oto bu ëpp huit ans si bu dee juumuma. Mhm. léegi ñu ne oto yooyu comme état du Sénégal nanguwul mu dugg fii ñoom dañu koy contourner yóbbu ko Gambie. Ah. buñ ko yóbboo Gambie li ñu waroon fay fii. ñu fay ko foofu oto bi dugg fii oto fi oto bi dugg fii Sénégal xam kon booy xool d'une part c'est l'état bi moom mooy perte. Mm-hmm. par contourner nañ voies yi dem Gambie régulariser ko foofu oto bi dugg après wax na ma bu duggee fii am na loo xam ne nag moom la état bi di cof mais li ëpp Gambie ñoom ñoo koy lekk. xam kon booy xool loolu loolu si baaxul si suñu économie. donc dans la mesure gars yi am nañ yeneen pexe yeneen voies yu ñu mën a contourner ba seen oto yi dem fay wala Guinée ba oto yi duggaat Sénégal wala Mali état bi perte te foofu dinañ fa fay mine de rien benn 500000. loolu bu totalisé ñaata la si xaalis donc kon booy xool oto yu bëri visite technique dafa war am fépp si Sénégal foo dugg si Sénégal région bu ne dafa war am technique. Mm. nga xam ne oto dañu koy saytu comme nit niñ lay defaree euh, visite médicale xool sa yaram say organe mais oto dañ koy xool parce que oto nit moo koy dawal organes yi dañuy dañuy paan pneu yi dañuy usé nangam ak nangam ak nangam. <laughs> <laughs> xoolal nuyoo waale. yéen Guinée xoolal xam nga lii mënuma fontoo xam nga déggoo bi xam nga déggoo bi mënuma fontoo. ma xool leen fii xool leen fii ni mu tuutee rek xool leen fii. ma ne kan ma la solal laa wax dafa tekki am xaalis dafa tekki di yéeg avion di yéeg avion ak di gis ay grand prix. yow bëgg nga ma jaay affaire bi ku di gis ay président Guinée. kon xam nga ne liggéey naa. di gis Diomaye xam nga man gisagu ma Diomaye. Nabou di dégg Sonko téléphone. dëgg la dégg gu ma ko loolu. dëgg la maa ko fa am. non mais mais àdduna gudd tànk ku tekki rek wal na ko quoi. xoolal xoolal étude bi bi rek. non lii bi léegi léegi léegi léegi léegi euh, Diomaye yow nee naa ko Diomaye sa baal ma. comlaay euh, bële bi nga si tànn génne ko pour ak nuróole bi ñu ngi mel ni ku jëm ngeen di. problème bi de ban at la. waaw Pape Ndiaye mi ci. ooyee da ngeen doon da ngeen ngi nii yow. xoolal sama xoolal bu tuuti bi rek ni ma yooyee woon ndeysaan xoolal boppu Fam Ndiaye bi rek xoolal ngóone rek. <laughs> xale màgg na xale màgg na. yéen da ngeen daan hôtesse. Eh? naan hôtesse suuf. plateau. <laughs> léegi la léegi la kii am ki leen di solal nu mu tudd. na mu ay waay ñaan leen am nga. déedéet euh, nu mu tudd popalinu 300 yi ñuy. eh dañoo habillé woon de. Eh, Ibrahima tu te rappelles daf dañoo habillé woon. waaw am na waaw ki ñu habillé woon moo ñëw. waaw moo ñëw foofu solal ñu ko. waaw moo ñëw solal ñu ko waaw. Aïcha Ibrahima fi nga nekkoon baax na. xam nga <laughs> xam nga booy xool accident yi li koy li koy causé yëpp loolu la mooy ñàkk def visite technique mais gis nga dëkk bu gis nga tubaab yi li ñu ñu rawee mooy seen système dafa performant gis nga Djibo Leyti Ka yàlla na ko yàlla yërëmte te yéex a ñëw moom dafay wax de bi muy nekk réewum France di nekk ndaw dafa defoon benn infraction nee na tubaab yi ne ah kii ni ñu ko xoolee xale bu intelligent la ku am avenir la nañ ko fiché yàgg-yàgg dina fay bor bi maanaam teguñu ko benn amende dañ ko bàyyi mu dem mais dañ ko fiché ci seen système mais bi jibal da ka demee ba jamono dox euh, dab ko ba mu tekki mais amaan boobu dañ ko ko fayloo kon ah. loolu léegi seen système ni mu performant we tubaab yi xam nga tey même boo xoolee ni ñuy dëgër pire gars yi nii tey man su ma tegee fii di jaay ay dàll tey ñu ñëw jëlee ma foofu ne ma léegi sa marchandise bi balaa nga koy jël si fii di nga fay cinquante mille sénégalais ku laal poosam rek la bañ waay gars yi tànk laaluñu seen poos si réew mi du ñu nekk ay nit y a trop de bordel léegi loolu yëpp nga bëgg rejeter la faute sur yow yow yow yow mi dem mandi est-ce que yow ah xam nga code de la route. man bataillon du train laa nekkoon. xam nga bataillon lan mooy seen métier. Mm. lép lu jëm ci circulation ak transport corps boobu loolu rek ngay jàng amoo xam-xam ci leneen ñoom ñoo yor oto armée ñoom ñooy former chauffeurs yi ñoo leen di jàngal est que nit ki jàng na code de la route est-ce que xam na circulation est-ce que oto bi baax na est-ce que nit ki xelam mat na pour mu dawal oto yooyu yëpp bu manqué. mais da ngay gis conséquences yi mooy accident yu bëri parce que nañ leen waxante dëgg. da ngay gis xale yu ndaw yore oto si garage bi la ñuy ne di raxas oto di fomp ba yeewu suba rek am permis doo xam nu ñu ko amee commencé dawal. mandi drogué wu nañ leen waxante dëgg man yéeg naa fi oto yàgg na di dem jawbe bis yu nganda mais maanaam dama ne fii man sama bakken yàlla rek laa ko dénk. ñetti mm. chauffeur la. day leen ñu wàcc tux naan seen affaire keneen dawal nga xam ne sa bakken bi yàlla nga ko dénk. Mm. léegi bu accident amee lan moo si responsabilité état. xam nga état lan moo si responsabilité hmm. état moom moo yilif policier bi ne ci tali bi ak gendarme bi complicité état mooy dugg parce que état gis na oto bi bi muy bi muy jógee garde boo maraîcher mais garde boo maraîcher ba Tamba ba wëru soo surtout Ibrahima am na oto yoo xam boo leen nee jàkk soxlawul di leen laaj moom laa la wax ma ne la complicité état looloo ci responsabilité foofu lay engagé par ñoom gis nañu oto bi oto bi yor ay mille francs oto bu ñuy dem